es ñeel mbirum Ndella Madior Diouf enquête yi nga xam ne sûreté urbaine amal na ko fësal na ay mbir yu doy waar bokk na ca di joxe ay certificat de décès waaye tamit suul ay néew ci anam yu leerul enquête bi di xamle ni animateur bu rajo Safir FM boobee nga xam ne moo yoroon lépp lu jëm ci suul bébé yi ñàkk seet bakkan ca boobule pouponnière sûreté urbaine dal dina koy placer en garde à vue naka noonee médecin bi nekkoon ci SOS santé bi nga xam ne Ndella major moo ko moom te moo ko daan jàppale bu daan suul xale yooyee buñ sukkandikoo ci l'observateur ca weeru octobre 2023 lu néew juróom benn bébé bokk na ca Zulaika Ndella Madior Diouf Akon Anda Sarr Bijou Ngoné Youssou Ndour Mouhamed Samba Ndiobène Ka ak Marema ñoom ñëpp dañoo ñàkk seen bakkan ci boobu boobule pouponnière am na ci sax nag ñoo xam ne ci kër docteur la ñu ñàkkee seen bakkan bokk na ca hôpital Albert Royer hôpital Dalal Jàmm SAMU municipal wala sax clinique de l'amitié lañ bët yooyu tamit li mu xam la rek mooy ne Ndella Madior Diouf lay lekk da amal tamit ay signature ci yooyu la acte de décès ñeel xale yooyee jaarale ko ci daluwaayam bii di SOS santé enquête bi nag fësal ne ku ko doon liggéeyal ca rajo Safir FM moom itam teg nañu ko loxo ndax dugal loxoom ci ay suulub xale yu ñàkk seen bakkan moom animateur bi di xamle ne suul na ñaari bébé fële ci cimetière bu Yoff ñu fàttali rek ne mbir mi mu ngi euh, fësoon ginnaaw ab vidéo boo xam ne daf doon fësal fitna yi nga xam ne ñu ngi ko doon teg ci kaw bébé yooyee ak ñenn ci ñoom ñi ñàkk seen bakkan loolee tax na sax nag ñu dal di teg loxo lu toll ci juróom-ñaari nunu ak assistant wu Ndella Madior Diouf ginnaaw nag ba ñu dal di jëlee ñeent fukki xale ak juróom-ñett yu nekkoon ci pouponnière ba yóbbu leen ci kër docteur kilifa ya tëj nañu boobule daluwaay ñu bari ci xale yow yee dañoo feebar am ci ñoo xam ne sax dañoo sonn enquêteurs yi nag jamono ji li ñu bëgg mooy fexe ba xam xale yow yee ana ñan ñoo leen jur.